loo indi tey. tey dama indi koo xam ni invité woon nañ ko fii tey dama indi koo xam ni moom laa njëkk a gis ci ab politicien bu matt mbonoomu politicien am matt waaw. kii nag gis nga bu attakee rek ñu waaru léegi waxal. <laughs> ki mattoon mooy galo la mattoon galo bu PDS. Ah, ah, ah, Suzanne. Suzanne ah Ahmed Suzanne. waaw waaw mais galo da ko mbéj. mu mu matt ko mu matt ko waaw mu matt ko. dóor <laughs> fayu la. <laughs> voilà Suzanne moom nag ñu ngi koy nuyu daje woon nañ foire yàggul dara man ak moom Baye Assane mais tamit Sénégal des fois ci laa comprendre ni itam biti gars yi bari nañ xët-xët mais boo dajee ñoom da ngay xam ne ay nitu kese lañ. man li ma comprendre ci moom. mooy nit ku baax la. nit ku baax la waaw des fois nag ak euh, kiiwu politique. Mm. xaw ma nag lu muy dugg Sénégalais ba tax ñuy waxee neen ni mais man daal li ma gis ci moom keroog. dama gis ni nit ku nit jox nit cër la parce que taxaw naa ak ñun waxtaan. kafre après euh, daal di voilà daal di dem ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. ak fu mu mën a nekk Sénégalais loolu lañ ko baaxoon a xamee. Mm. débat débat la mais su ci génne nag nit ku la itam ak it li liñ ko xamee mais bii yoon nag. Mm. dañ koo invité ci benn chaîne ci internet bi. mu wax ba tudd ab sëriñ sëriñ boo xam ne ña ko yaakaar bari nañ lool ay góor ko topp ak jigéen waaye sëriñ ba nag jigéen la. Mhm. mu lëkkale wax ji ak ku fi nekkoon ministre l' intérieur ay jamono muy Aly Ngouille Ndiaye. man nag ba ma gisee bido bi ci ay jamono xawoon na ma yéemu ci wax ji tiit ci. ndeke joo wax ji am na fu muy mujj balaa ñoo dem ja fa muy mujj ñu ànd ak sénégalais bi xamagul lu ñuy wax li ci internet bi ñu xool wax ja fan la dooree lan la Suzanne wax ñu dellu si waat. Mhm. ak ak ak ak soxna Aida lan lan la seq ak moom. Aly Ngouille. lan la seqoon lan la seq ak moom ak lan la seqoon ak moom. bi muy nekk ministre de l'intérieur lu mu seq ak Soxna Aida. ah Soxna Aida bu ko euh, sëriñ bi tere muy def lu ko neex. di cat di cant. yow gi déggati nga yow bi Aly Ngouille nekkee ministre de l'intérieur <laughs> ak léegi. Amath Suzanne non non non déglu ma. yow Aly Ngouille nekk ministre de l'intérieur soxna si di cant cantam ñu autorisé cant yi nga ne Aly Ngouille euh, lu mu seq ak soxna si xam nga Amath ngay tooñ nag <laughs> tooñ. dama ne man li may wax ñeme naa ko. te Aliou Ngouye mu ngi may dégg su fekkee mu ngi may dégg dama ne la. bi Aliou Ngouye nekkee ministre de l'intérieur. cant gi soxna Aida. bon man dinaa wax sax soxna waaye waruma wax sax soxna. doo wax soxna. waaw ah, bi soxna Aida. Mhm. Aida Diallo. du noonu la sant. Mhm. bi ah, ah, cant gi ayda Diallo daan def. xoolal ndax mu ngi koy def ba léegi ak ni mu ko daan defee. di défier la xalif. mais loolu pouvoir boobu Aliou Ngouye moo ko. Aliou Ngouye moo ko mayoon pouvoir boobu. muy tàngal xolu xalif bi la xalif général des Mourides xalif général des Mourides amul lu mu deful. voilà mi ngi noonu euh, loolu mooy élément bi nga xam ni man ak Sénégalais yu bari ñoo ko gisandoo ci internet bi gannaaw bi loolu nag ma démb ma gisaat beneen titre ma dugg ca fekk ca muy wax ndek yow soxna sa yónnee na ko ab citation direct mm. ñu déglu dellu si waaw effectivement euh, démb am na ku doon insisté di ma téléphone. après yónnee ma message ñaari yoon. après bon bi ma gisee message yi. donc bi ma demee ba féex ma woo donc euh, message bi donc euh, benn huissier la de justice. wala boo koo xam ne mu ngi ci cabinet benn huissier de justice. alors ma ne ko nag bon mu ne ma effectivement wax ma comme un peu li nga wax nii ne daal dafa yor benn citation Euh, pour man boo xam ne Aïda Diallo moo ko jox voilà léegi nag ma ne ko amul benn problème man mën naa ko jël mais xam naa ñu xool fi léegi suba alors donc tey nag laa dajeeg moom voilà ma wax ko foo xam ne dinañ fi mën a daje ma récupéré ko après ma defal ko décharge moom daal euh, nee euh, émission bi ma def quoi. voilà donc ak propos yu ma ci wax quoi diffamation et puis xam naa it pour laver son lool quoi. moom nag euh, chargé na euh, bind na wala wax na xëy na ñu bindal ko ci citation bi hmm. mais man jàpp ma ne man dama diffamé hmm. waaw jàpp ma ne dama tooñ kenn hmm. te yaakaar naa ne sax euh, bu fekkoon citation la wala wala leneen man ci Aly Ngouille laa ko doon gën a xalaat quoi j'ai pas di yàq deru kenn waaw muy Aly Ngouille comme muy moom voilà man voilà li ma li ma xam laa wax li ma wax moom je l'assume parce que ñu bëri dañ daan wax ne euh, ndaw si euh, li muy def di défier le xalif peut am na ko nekk ci ginnaawam voilà koo xam ne certainement sax ci pouvoir bi la nekk voilà léegi nag euh, man ci sama ci li ma xam mooy Aliou moo ko doon moo ko doon protégé parce que daan leen bëgg dal ci kawam mais bu ñu waree dal ci kawam Aliou moo koy jox information yoo xam ne moom ñi ñu bëgg a daal ci kawam duñ ko duñ daal ci kawam wala buñ buñ ko buñ bëggee daal ci kawam duñ ko fa fekk. tey moom moo war a indi ay preuve pour wane ne man la ma wax ca émission bi amul. waaw wala Aliou Ndiaye ci boppam indi ay preuve mais du ñoom ñoo may laaj preuve waaye ñoom waruñ ma laaj preuve. Aliou Ndiaye moo war a indi preuve ci man li ma wax wala moom Aïda Diallo mu indi preuve ci li ma wax ne man li ma wax du dëgg mais man li ma ko wax li ma wax fu wóor laa ko teg te du ma ci ginnaaw. voilà mi ngi noonu Adja lii mooy li ñu jëlee ci internet bi tey. muy Ahmed Suzanne Camara. Mm-hmm. defe naa nag defe naa nag xëy na bu ñu waxtaanee daal am na exagéré guddug ci wax ji ba keroog may jàpp ni maa juum wala plateau dina ci indi leneen Ahmed mii mm. waxoon na fi ba tudd Ablaye Wade ba tudd tudd baatub duma defe naa ci lañ ko waaj a ngàddee woon mu màtt ko. Mm-hmm. Ahmed mi bu yàggul wax na fi ba tudd Ousmane Sonko ba tudd baatub dañ koo war rey wax na fi ak yeneen ak yeneen ak yeneen ndax nag day ba mujj exagère lay doon. Mm. wala day nekk assurance bu mu am ndax fi mu féete ba tax lu ko neex wax wala da nga jàpp ne itam lii ak tooñ la. Mm-hmm. xam ne sooy bu amet Suzanne li mu def man xaw ma fu mu ko teg. fu ko kan moo ko fal ba lu ko neex def. Ahmed waaw ah, man de des fois mu koy xool ba si àgg ma ni lii tegu ko fenn lu dul ni ci nguur gi laa bokk. Mm. wala non parce que daa am loo xam ne bu doon nii la mu waxoon ci sonk da ko wax wala mu waxoon ko ci lay waat ñu lijjanti ko. Mm. damay faral di joxe exemple ab Abdoulaye Wade lu bari. ci <laughs> waa ji di wër télé yi di wax. kan la te mu dëkk cees Thiès waa te mu dër. Massaly Massaly ah daa am lu xewoon ci partie socialiste ci ñoom mm-hmm. bu naa ma Sall ak ñoom Tanor ci benn meeting bu fa amoon. Mm-hmm. Mm-hmm. Abdoulaye wadd yu mu yëgee loolu dafa bàyyi justice ñu def liggéeyam ci Massaly. pour loolu bañ amati. ok parce que lu dangereux la woon. tey Suzanne bu demee ba mën a toog ci penc. Aïda Diallo du n'importe qui hmm. Aliou Ngouye du n'importe kii hmm. mu mën leen a jiiñ lu toll nii. Hmm. mu nee na lu ma xam laa wax bari na lu mu xam moom te waxu ko. ok bari na lu mu xam taw waxu ah, ko. loo xam da nga ko war a wax. waaw mais bari sax lu mu xam te waxu ko. parce que moment bi Aliou yi génnee ni démissionné na ñuy njort naan day nekk candidat am déet. mu génn def li mais bu dee politique na wax waxi politique. mais dafa dugg ci vie privée ay jàmbur ci ñoo xam ne. ay kilifa lan Aida Diallo même budul dara jigéen la. si. yaa yaay jàmbur la. waaw borom njaboot la. teg ci Cheikh Béthio Thioune hmm. mais jóge na fi. Hmm. kon daf ci am loo xam ne bu ko dee wax mais c'est des accusations yoo xam ne dafa graaw hmm. jëmee ko ci ab soxna ni ko kii defee Ali kii Aida Diallo. soxna si. noonu la ko Ali ngi wala defe da ko war a yóbbu ci yoon. ok ñu xool kàddu yi fan la ko teg bu amee ay preuve mu teg ko. d'accord même tey bu ci amoon ay preuve sa waru ko wax parce que kenn waxloowu ko. Mhm. même bu ci xamoon dara moom. Mhm. xam lu ci kenn xamul kenn waxloowu ko parce que kenn laaju ko ko. parce que ki ko doon poser question laaju ko loolu. déedéet ci leneen la ko doon laaj. Mhm. mais pourquoi mu convoqué loolu ci débat bi. d'accord ci ñoo xam ne ay bàyyi jàmbur lan ci ñoo xam ne ay ndeyu jàmbur lan. d'accord loolu man laa gisul fu mu ko teg. bu xajee rek am nag baat kàddu gu Cheikh Baar doon wax. mooy mooy na ni may tudd doon bale douce. d'accord. d' accord non moom moom du bale douze heures non waaw moom du nañuy maytu bu nee nañuy maytu dama maak noonu gi moom balek ëtt la di balek pénc du bale douze waaw ah, nañuy maytu lii parce que am na saal buloo yoo xam ne man doo ko def doo ma ko def loo quoi d'accord kenn jaru ko bu dee Macky tax mu koy def Macky sant ko ko te Macky jaru ko ku mën a tax mi def lii rek jaru aywa bu xajee ñu defaat kii ma jigéen ñoo bokk seetaanandoo li xew déglu nga première vidéo bi dégluwaat deuxième vidéo bi waaw son bu lii mooy euh, di bay bayal sa doom ba mu indil la loraange parce que hmm. souvent bu ñu doon dégg euh, Ahmed Suzanne hmm. si opposant yi rek la doon faral di di di wax chaque jour ak di leen ŋàññi yaa ngi koy tudd tout à yi nga xamante ne ni yëkkati woon na ko jëmale ko ci Ousmane Sonko. Hmm. tey jii nag dugg na ci biir partem te suñu bàyyee nii rek dana dem ba dem ci njiitu paax parti bi loolu la ñuy wax yar sa kuy ba mu màgg bu màggee balaa muy mbëkk kenn yow lay njëkk a njëkk a mbëkk leneen li mu wax nag si mbirum ay Diallo ak euh, Aly Ngouille même waxuma ni du dëgg waxuma ni dëgg la même bu su fekkoon dëgg la sax moom yoonam waru cee nekk parce que ñoom ay kilifa lañu ay magum jëmm lañ Aïda Diallo amul jëkkër mm-hmm. donc nekk na koo xamante ne ni peut-être war na mën a amaat benn njëkk suy dem di bëggante bu moom warul war toog ci ci ci ci télé bi di ko di ko wax. même su fekkee yoonu yoonu politique nekku ci am na sañ-sañu dem bëggante ku ko neex ku ko neex yi bëgg woon mën na koo bëgg ngi ngir takk ko def ko soxna ndax hmm. jigéen la n'est-ce pas leneen li ma si nemmeeku nag mooy que ni Ameth moom wax dëgg yàlla. war nañoo dimbali peut-être fenn lay d'accord ak moom mooy cant yi nga xamante ne nii mi ngi koy def te xalif bi à chaque fois dégg nga kàddu gi mu ci wax jigéen day def fu jigéen na ginnaaw diw loolu la ñu yàgg dégg mais nag kantaa nag di ne ba mu fi nekkee la daan da daan ko jox doole ba léegi nii doole ja mu amoon mi ngi def ay gàmmoom moom ce pas. ren jii rek ci màggal gi gis nañ ni ñu def kon donc jàpp ma ni euh, Aly yi moom moo ko doon jàppale même bu fekkoon loolu la moom moo taxoon te moom jóge la ca intérieur ba konoon mbir yi doon na doon doon na arrêté doon na arrêté nañu dimbalee rek ngir yàlla bêtise yi muy wax mu xam fi mu koy yemale parce que vie privée jàmbur moomu fa dëgg yàlla yoonu Ahmed Suzanne Camara euh, nekku ci parce que fii ku nekk am na sa mbuut boo xamante ne nii tey jii bu ñu la ko waxaloon hmm. nga taf ñëpp taf seen gémmiñ na bàyyi yooyu voilà Adja hmm. euh, Aïda Diallo de mosuma yëg fu mu duggee ci politique defe naa kon wax ji mënoon na cee mucc su fekkoon ni xëy na léegi nag lu tax ñu dugal ci turu Aïda Diallo itam ay question la parce que Ali la jàkkaar lool Ali ab politicien la nee na dafay nekk candidat ndax da nga jàpp ni daal dafa am leneen lu ne ci wax ji lu dul rek bëgg a tooñ Aïda Diallo waaw xam naa ni li Aly Ngouille euh, démissionné moom la digéré wul moom la digéré wul mais cela ne veut pas dire que nii dafa war a tooñ jaamur hmm. soxna Aïda luñ ko mënti wax li mi ngi toog ci roqam di def yi jëfam bu waree cant cant wala dara te ba léegi mi ngi continuer di def ay activités religieuses am mais Ahmed Suzanne moo war a bàyyi tooñ activité religieuse non waaw ay ay cant cant ak yëpp <laughs> noonu laa ko mën a tuddee ay cant yooyu <laughs> mais man man man loolu sax c'est pas important man lii lii am solo mooy <laughs> Amath Suzanne moo war a bàyyi tooñ ah, a waaw tooñ du gàllaaj te yàlla àndul ak ñii tooñ mhm. yow kii ma nga ca roqam toog Ali doon na ànd ak ñi mënatul ànd ak ñoom mais c'est son plein droit mu mu démissionner bu ko mënul vraiment waaw mais moom moom moom plateau bu mu toog bala mu fay jóg wax fa toj toj sama xarit la mais parce que sama xarit la parce que dañuy tase ci émission yeeg yooyu kafre et tout parce que on se fréquente pas mais nag nit du tooñ tooñ du gàllaaj na bàyyi tooñ su bëggee fréquente ay kilifaat warul ne ci bërëb lu mu xam itamit wax ko ci pénc même bu doon lu am la lu mu xam la waaw dama ne même bu doon lu mu xam la lu mu lu mu parce que démb maa ngi dégg ñu koy woo téléphone mu naan man jàpp ma ne tooñ naa ah jàpp ko ko tooñ ah, tooñ na kañ Aly Ngouille Ndiaye kilifa la nga bëgg ko nga bañ ko kilifa la dafa am ay jabaram yor ay doomam soxna Aïda Diallo dafa yor sox ay doomam yor ay taalibeem donc nit daal du tooñ d'accord waaw Ahmed Suzanne daal moo war a bàyyi tooñ nii la fi defoon jàll fi baat maître Abdoulaye Wade ba galo mbéj ko ah, yii yëpp aussi gor day moytu tooñ wala gor day moytu ah mais quand noonu la Serigne Babacar Sy waxoon na ko gor day ak tooñ dëkk la alaaji noo gisee ñaari vidéo yi ñu teg tey moom lañ indi ci victime du net nga xam nga man de wax dëgg fa yàlla Hmm. Euh, vidéo yi de sama yoon newu ci parce que. alaaji nag sa yoon da cee war a nekk ndax yaa ngi ci penc mi ñu jëlee. Euh, ah, affaire bi ci penc mi ah damay expliqué damay expliqué sama raison boo ma dégloo bu ma li tax sama yoon newu ci. mais vidéo yi laa fi teg parce que li ñu wax aalingu yi. Hmm. <laughs> ba tax ñu indi ko ci penc mi. waaw euh, dañoo wax lu ko gën a ñaaw Ousmane Sonko. topp indi woon nañ ko ci penc mi non non dama la bëgg a xam ne la topp ko di ko ko wax. Hmm. di ko ko wax di ko ko wax topp ko di ñoo xam ne ñu ngi nii di wëndeelu di ah. doxee nu leen neex topp ko di ko wax loo xamante kenn mus ko ñoo ñu daan wax nag bu ñu wëlbatikoo di ko waxante ci seen biir sama yoon newu ci ñoom bu leen neexee comme que seen wax jooju ginnaaw wax nañ ko Ousmane Sonko te jël wax ju ñaaw semaine bi ci nekkul kon lii nga ci wax loo ko ci waxee ko lii ma ci wax c'est pour fàttali rek li tax sama yoon ne ci xam nga ah sa yoon da cee a ne yow yaa ma yóbbu yaa ma yónni ci internet ma ñëw indi la dara ngeen ma sama yónni dañ koo yàgg bay bayal xam ran waaw ama Suzanne Camara mi bañ ko daree bay bayal du tey depuis kañ ba mu bañ faloo ba nëgëni day wax lu ko neex yaa ngi dégg day wax lu ko neex. Hmm. est-ce que comme assurance daal. du wax na ko fi Abdoulaye Wade. waaw yaa ngi dégg. Hmm. Moustapha Niass am na lu mu ko waxoon ba ñu génn ko assemblée nationale parce que la nekkoon ba ñu dàq ko. <laughs> ah oui waaw nekkoon hmm. ah. yaa ngi dégg. mu wëlbatiku di wax. di raxas di expliquer di wax. léegi man bu waxee ba dugal boppam ji guuta man du ma ko tàllal loxo du ma ko génne. non fee mu dugg ne moo fa dugal boppam te yàgg nañoo wax xam nga réew mi dafa mel ni moom léegi moom dafa am ñoo xam ne moom mën nañoo wax moom lu leen neex. Mhm. am ñoo xamante ne bi moom def nañ moins lu gën a ndaw loo xamante ni sax parents yi da nga da nga naan kii lu mu def. ok nit fii la taxaw barki Demba Ndiaye. waaw lu mu wax nit dof saaga wut kenn. moom boppam sax saaga daal yaa ngi dégg ñaata weer ñu ngi ko téye ci kaso bi. yaa ngi dégg ñu ngi ko tey ci kaso bi ñaata nit mm-hmm. ñoom ñooy génn suba ba ngoon di saaga ay nit ay kilifa wallaay di taxaw di leen wax wax yoo xam ne kenn mënu koo gis mm-hmm. et pourtant di ko asibé te dara dara du leen ci fekk yaa ngi dégg yooyu mooy tax pareen saa bu yenn yi dalee ci bu retourné ci ñoom da nga leen di bàyyi ñu xam li muy saf ñoom ñu seere parce que nekkoon nañ ay kilifa ñoom ñëpp ay kilifa lañu woon. non non du du du ay des politiques ñoom ñëpp ay kilifa lañu woon am na yoo xamante ne bi bu kenn waru ko cautionné lu dul yoon kenn waru ko cautionné. d'accord yaa ngi dégg am na yoo xamante ne bi bu ñu xamee ni lii du yoon waa ji di def naka su dul noonu dañ koy dellu si kii jox na fi exemple Massaly Samb. Mhm. da nga koy arrêté ñu xam ne lii du mooy lii. boo ko arrêté ñeneen ñi ko doon xalaat ba ko. mais dañuy bàyyi nit ñi def naka su dul noonu di def leneen mhm. booy bi moom lii la xam. booy bi booy ba ci lii mu nekk nii la xam maanaam moom wax wax yu rëy quoi comprendre nga wax wax yu rëy jëmale ko ci ay nit loolu la xam. mais beneen bi sax am na boo leen fàtte ci affaire kii Fulbert Sambou ak di jëmbat ci. waaw li wax na fi waaw loolu gën a ah waaw waaw dëgg la waaw loolu gën a ba léegi anam. waaw lii kii wax ci kii kii religieux lee moom béti moom. du religion waaw <laughs> ah, mais du religion nag Omar du événement religion moom. tey victime la femme non da maa révisé na. sëñ yi wax ne yërëm ma. xaw na la ray bi la. saa yërëm ma saa fàttali bu war a laaj. wax na dëgg de sëriñ daara yi bis buñ commencé dem ci gaal di nga gis lu hmm. ah, wax na ci biir nee na léegi nga dégg ni commencé dem ci doy waar. dégg nga dégg nga wax na ko waaw mais da gis koo xam ne day liggéey ñaari weer ñu dàq ko ñetteelu weer bi mu noppal ñeenti weer doo nga liggéey mais dañuy jékki-jékki dégg ni sëñ jaara yi commencé nañoo dem ci gaal <laughs> dafa jeex ah. hmm. waaw kon mii noonu en tout cas euh, man euh, wax ji li ma ci ñoroon rek mooy du sax Aïda Diallo wala kii loolu moom ñoruma ci mais jigéen jigéen maanaam boo boo bëggul ko tuumaal sa ndey buggoo ko tuumaal sa rakk buggoo ko tuumaal sa mag wala sa rakk bul tuumaal maanaam jigéenu jàmbur ak lu mu ci mën a doon ayda ndax mi ngi ci euh, lu neex sëriñ bi ak nekkul ci lu neex sëriñ bi relation ya am moom la concerné dafa am loo xam ne maanaam maanu technique waaw maanu technique dafa dafa dafa am solo ba gis nga Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh dañu doon nettali nettali bu am solo ci Amath lu am lu am solo lu ñu doon nettali Serigne dañ koo ñamalagut dara rek mais bu fekkoon ne ko ci yoon dina xam ne am na wax yoo xamante ne bi kenn ko am lu am solo lu ñu doon nettali ci Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh te dañ ko war a delloo si waat mooy Serigne Abdou dafa ñëw ci néegam di dugg fekk kuy dugal loxo ci poosam mm-hmm. mu dëpp ngir maanaam sax buggul gis waa ji sàcc gi muy sàcc mais suturaal na ko. Hmm. maanaam dafa am loo xam ni même boo ci yemee jigéen di ko def bàyyil mu seet loolu de yow nga jël koo xam ne wala dafa am ñoo xam ni. Ah. ñooñu mën nañ leen a bàyyi ci internet bi ñu koy defante mais Suzanne bu dee dafa bëgg nekk politique seet di ànd ak ay kilifa dafa am lu mu war a moytu tey am na loo xam ne bu ko defee yow dootoo ko wóor. Suzanne xamuñ ci dara yeneen kilifa yeneen kilifa man xaw wax tey jii mi mi Aïda Diallo di Aly yi seen kilifte fu mu toll même bu ñu doon def dara. Hmm. Soudan du ko wax mais ah, moom laa wax moo tax ma ne boo ànd ah, kilifa nag da ngaa war a yar say kàddu. kilifa waroo fexe ba kilifay ragal am na loo dafa war a téye làmminam bi mu jeex. ay li nga sol nag rafet na lool. macha allah boo ko summee gisoo ko maa ko sàcc loolu moom teel naa la ko wax. waaw d'accord waaw su ma demee fa ma koy sumee doo ko fekkee. Ah, man dama lay espionné sa <laughs> sa jàngu balaay woo sa jàngu balaay woo. nawle dafa fort de. aywa ayca nawle dafa fort. kon ñu joxante dig daje ba altine ak jàmm ci kàttanu borom bi. d'accord incha allahu bi ñu lay jaajëfal di leen jaajëfal yéen ñu bokkaloon na plateau bi ce fut un plaisir di souhaiter nag sama rakk sama doom.